moom kaala googee waral kaala yi. kaalaam gii kaala ak suñ tubaab gi. sëriñ bi amul jot di kaala. bay toog fi naan day jël kaala gi du ko wëral nii di ko dugal mosu ko am. kaala gi ne li muy yéeme yéeme. day sànni rek kaala gi kaala boppam. suñ tubaab amul jot. ba mu wàcc du sigg ba mu wàcc. kaala gi du wàcc ba nga naan wet gee day daa xaw am nu mel. gis nga ni mu jubee. kenn kenn kenn ku mas a gis kaala gu ni mel mustaam kaala ak Sëriñ Tuubaa mooy borom kaala gi kaalaam gi waral kaala ku tal kaala woo di na koy sant tey